ñu ngi tàmbali tey suñu liggéeyu xool li xew ci terrain bi ci Thiès bi ñu fa jógee jàll nañ Bambey ñëw Diourbel dem Mbacké ba yegg si fii Touba li nga xamante ni moo doon sababu jóg bi tey mooy ñëw saytu si li ñu santoon autorité administrative yi nekk ci gox yooyu muy teel a jublu ci liggéey bi ba matériel électoral bi ñoom ak DGE parce que DGE moom moo koy organiser mais daf leen koy jox ñu conditionné ko war ko yóbbu ci fi nga xamante ni fa ñuy voté ñëwoon tey kon pour xool ndax matériel bi lépp yegsi na matuwaay yi nga xamante ni moo ci war ngir bu dimanche jotee incha allah électeurs yi war a tànn ñi leen war a taxawal ci conseil départementaux yi ci communes yi ak ci villes yi mën ko def ni mu waree nit ku nekk am nga droit nga vote sa droit la euh, te sax quelque part et c'est la vérité c'est un devoir citoyen que de voter nga tànn ni kii moom ma doy kii laa yaakaar ni mm, li muy wax ni su ci jotee dina ko def mu dellu si ci ñun convaincre na ma gëm naa ko donc moom lay sànnil sama carte kooku ne am na ci droit waaye droit boobu mayu la ngay yàqal kenn mayu la tamit ngay yàq li nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokk ba rôle état la pour sécuriser le scrutin bi nga xamante ni ñi ngi jub élection yi dama jox ndigal gouverneur yi ni leen kenn ku nekk ci ñoom na nga def réunion yi nga war a def yëpp xool li nga war a taxaw yëpp ngir sénégalais yi mën a génn voté ci jàmm dellu seen kër ci jàmm réew mi nekk ci jàmm ñu continuer di dund ni ñu nekkee ay doomu ndey ak ay doomu bay niñ ko xamee ci suñu réew kii lay votel te bu fekkente ni voté woo ko ma xeex ak yow kooku ak foo mënti bokk yoon daf ko dàq diine daf ko dàq ngor daf ko dàq rôle état nag pour mu assurer la sécurité de personne et des biens kooku mën naa leen wax ni du loo xamante ni c'est négociable